rahimahullah tabaaraka wa taala kon incha allah dañuy ñëwaat ci waxtaan bi delloo kàddu saa ñu continuer ndax tàmbali woon donc su noppee après ñu dem ci question yi ak contribution yi donc saa su xaw a yàqam bi dañuy def gain de temps bu bëri incha allah delloo ko kàddu bi ba ba mu noppi incha allah ñu doon ñu ci ci ci topp.
alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان سنتحدث عن شروط وخطوات وأسباب التوبة li des ci waxtu wi dañu bëgg a fàttali sunu bopp fàttali mbokk jullit yi sarti tuub ak yoon yoo xam ne bu fa nit jaaree daal di tuub surutu wa xatawaat at tawbatu sadiqa sart ak ay yoon yoo xam ne mooy yoonu tuub tuub boo xam ne tuub bu dëggu la pour sunu borom subhanahu wa taala nangul jaam bi tuub tuub googu il faut mu tegu ci ay sart bu ñu yaakaar ne bu yàlla ne tuub leen waa ji day jékki-jékki rek daal ne man tuub naa dafa am ay yoon ak ay règle yoo xam ne tuub boobu ci lay tegu pour ku góor kooku yàlla baal ko wala ku jigéen kooku yàlla baal ko wala ku mag kooku yàlla baal ko wala ndaw loolu yàlla baal ko dafa am ay sart ay règle yu borom xam-xam yi tëral daan ne ki bëgg yàlla jéggal ko ki bëgg yàlla baal ko foog mu jaar ci yoon wii foog mu daal di remplir sart yi mbokk yi yooyu bi ci njëkk sart yooyu mooy an nadam kii tuub day réccu kii tuub day réccu bàkkaar yi mu doon def daf koy réccu su doon ay yére la daf koy simmi su doon ay photo la yu mu ci photo daf koy lakk day rëccu lan moo tax lii mu doon def mu koy def su doon kuy tox la day rëccu tox mi sart bu njëkk ci tuub mooy kii tuub pour yàlla baal ko foog mu rëccu lim doon def pour yàlla baal ko tabaraka wa taala réccu boobu muy réccu mooy lii mu doon def moom de bu doon tey du ko def su doon tey jii fii ñuy waxee du ko def mukk loolu mooy benn mooy an nadam ala ma faata la passé lay réccu ñaareel ba ca tegu wanniya an laa yauda ila zanbin fi ma baqiya min umri waa jooju day yéene ci xolam ne man bàkkaar yi ma doon def place yi ma doon dem barab yi ma doon dem wala lii ma doon def wala ñii ma doon àndal dama leen di bàyyi mu yéene ci xolam moom waa ji ne ba dundam di jeex dootul defati ay bakkaar an laa yauda ila zamb fi ma baqiya min umri li des ci dundam kenn dootu ko gis muy dugg ci bakkaar ñetteelu sart an yatruka al maasiya fi saatiha mu bàyyi bàkkaar bi ci waxtu wu mu mën a doon yonent bi dafa fekk benn waay bu takk lam ci marché bi yonent bi nuyu ko nuyu jullit waa ji fay ko fayu jullit yonent bi xam ne kon waa ji jullit la yonent bi jàpp ci lam bi rek daal di xëcc lam bi daal di dereetal ci loxo waa ji daal di buddeeku yonent bi ne ko walaw mitta wa hada fi yadik ma aflahta abadan maa ngi giñ ci màggaay yàlla bis boo deewaalee ak lam bi doo texe yonent bi sànni lam bi ci suuf won ko ginnaaw ci biir marché la bi yonent bi demee ba sori gaa yi mel ne nun gaa yi mel ne nun daan ne waa ji yonent bi dem na jëlaatal salem yonent bi dem na jalaatal salam bi nga takkaat ko waa ji daan na yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat yonent bi du tekki sama loxo bi safara ma ko ciy takkaat kon loolu mooy bàkkaar bi da nga koy bàyyi ci saase suñ la nee araam la da nga koy bàyyi waxtu wi nga fàttaliku li bàkkaar la da nga koy bàyyi jàngeen hadis bi waa ji bëggoon njaaloo ak benn jigéen wax ba sonn ndaw si lànk ndaw si dem am nekk ci xat-xat soxla xaalis ndax njabootam wala ndax yaayam bu feebar wala wëy juram bu feebar en tout cas soxna si soxla na dara yaayam sax moo feebar mu bëgg a faj yaayam amul lu mu ko fajee mu dem di ñaan waa ji ndimbal waa ji ne ko man ak yow bu ñu sëyul duma la jox xaalis mu ne ko kon d'accord naa ñu joxante rendez-vous mu ñëw waa ji jox ko xaalis bi konte ba mu ma teg ci loxoom ndaw si dugal ci lafu sërëm daal di simmeeku ni ko yaayam jure tëdd waa ji simmeeku tëj bunt yi wàcce rido bi tëj fenêtre bi wàcce rido bi dem ba yéeg ci kaw ndaw si ndaw si ne ko am na bunt bu des boo tëjul waa ji ne ko néeg bi benn bunt la am tëj naa ko benn fenêtre la am tëj naa ko wàcce rido bi ban bunt ngay wax mu ne ko bunt bi dox sama digganteeg suñu borom bunt bi dox suñu diggante ñun ñaar ak suñu borom bunt boobu tëjaguloo ko de waa ji daal di tëb toog tiit di jooy di xëxët daal di ubbi bunt bi daal di jox ndaw si duubul lim ko joxoon ne ko demal mu ne loolu mooy sarti tuub mooy booy tuub da ngay bàyyi bàkkaar bi nga doon def xam nga léegi-léegi maa ngi leen doon wax ne gars yi dañuy def lu leen neex ba pare boo waxee ñu ne jéggalu léegi-léegi xoolal borom moto bi daa jaar nii ne yëg ci kaw basangi gars yi ne ko mu ne jéggalu mu ngi ci kaw basangi de jéggalu jéggalu koy da ngay arrière waaye ngay diri basangi naan jéggalu léegi-léegi ah bi ñuy julli ci Sénégal looloo fi xew da ngay gis ku def tojaange ba pare boo waxee mu ne jéggalu kenn du jégguloo noonu ñaata sart lañ waxagum alhamdulilah ñoo ngi woon mbokk yi ci sart tuub ñaata lañ lim mooy laajte ñaata laa lim da ngeen yaakaar damay ne fi di wax rek ngeen toog foofu te du ngeen xam lu ma wax ñaata laa lim ñaata la waa boor bi ñaata laa lim yéen ba léegi gars yi leer na yi ma lim naam ku taxaw waxal ma yi ma lim yi ma lim naam ku taxaw wax coolof waaw même mu ne ñaar la naam ku taxaw wax ko coolof ma xam fi ma lim yow da ngaa jàng toogal mbokk yi dañu ñëw pour wax nit ñi xam comprendre pour buñ fi jógee ñëwuñu ni rek toog loolu indiwuñu fi il faut ñu concentré wu ci li ñuy wax dañu ne sarti tuub règle yi nga xam ne nit bu tuubee pour yàlla baal ko foog mu nekk yi may wax bu ci njëkk mooy réccu booy tuub da ngay réccu bàkkaar yi ñaareel da ngay yéene ne bàkkaar bi doo ko defaat ñett da ngay bàyyi bàkkaar bi ci saase foofu laa tolloon ñeenteel bi mooy bu doon alali jàmbur yi nga jël da nga koy delloo doo sàcc ba nekk milliardaire naan damay tuub déedéet da ngay delloo alalu ñi nga sàccoon sàcc portable jàmbur ñu wax nga ni tuub naa ba pare yoo ko déedéet soo bëggee tuub da nga koy delloo ak pexe booy def ba delloo ko nag da nga koy delloo soo ko delloo ba pare nag nga doog a tuub nga doog a jéggulu yàlla ci jël bi nga jël alalu jàmbur bi ci dul lu neexu bakkanam yii ni boo ko tënkee moom mooy sarti tuub mooy réccul yéeneel ne bàkkaar bi dootoo ko defati place bii nga doon dem doo fa demati jëf gii nga doon def dootoo ko defati pour loolu nag am il faut ñu préparer suñu bopp pour tuub boobu mën a nekk ndax tuub daa metti xam ngeen tuub nu mel mi ngi mel ne ku simmi dàllam dëgg ci xalu safara tànkam ndax daf ko ciy tegaat noonu la tuub méttee moo tax soo ko bëggee def il faut nga dugg ci yii encore ki bëgg a tuub foog mu duggaat ginnaaw sàtt yi bu bu mu leeree ci moom foog mu duggaat ci yii may wax pour tuub bi mën a nekk bu njëkk mooy day muñ da ngay muñ xam nga ñun lu tax mënuñoo tuub dañoo mënta muñ xoola koor gii rek ñi ko def lan la ñu def dañoo muñ yéen a ngi di toog da ngeen a muñ xiif muñ mar muñ ay bànneex muñ lu bare bari poñe seen bakkan ne bakkan bi waat naa ci yàlla doo lekk doo naan fajar ba timis jot muñ googu ngeen def loolu moo leen dimbali tey ngeen toog woor kon ki bëgg a tuub day muñ lan lay muñ mooy xale bu jigéen bi nga xam ne mënu ko woon bàyyi chaque jour mu ngi koy seet ah su ma bëggee dellu ci yàlla nag foog ma dagg sama digganteeg moom mu muñ bàyyi ko su ma ko mënee takk ma takk ko su ma ko mënul ma bàyyi ko. xam nga loolu tey gars yi mënuñu ko boo ko fi wasa gars yi ne waaye kii kii boy kii dafa con quoi waa ji du dem quoi kii du tekki. soo muñul yu bon yi ngay def mu ñett la asabru salasata anwa mu ñett la sabru ala almasiya sabru ala taa sabru ala alhumum wal masaib soo muñul bakkaar yi xoolal tëdd nelaw nelaw ban heure la neex fiñ la yéeme jógal xëdd am na ñoo xam ne da ngay dégg ñu ne man du ma xëdd waay doy na nelaw rek du question bëgguñu xëdd de mais nelaw yi lañ bëgg a tabaay moo tax léegi dañ naan ñoom duñu xëdd bu ma kenn yee nelaw kesee tax xoolal nelaw yooyu ni mu neexee nga dégg dégg ci jàkka ji naan hayya ala salaa nga ni teg hayya ala salaa lu muy teg mooy ñëw leen julli hayya ala salaa mooy ñëw leen julli hayya ala al falaa lu muy teg mooy ñëw leen ci texe gi yëpp yaa ngi tëdd de gaa ñi ne la qad qaamati salaa waaye ñoo ngi taxawal julli gi de te yaa ngi tëdd bu fekkee ku gëm yàlla la day sànni mbàjj mi tëb ci kawlal bi cëppeelu jàpp jubal jàkka ja c'est parce que yàlla jaral na ko dafa muñ nelaw yi ndax yàlla xoolal ci pourtant jamono boobu yàlla di la woo nga bañ yow xale bu góor bii yàlla di la woo nga bañ su fekkoon ne heure boobu ci lëndëm gi ci taw bi ci dënu yi sa copine bi daf la woo téléphone heure boobu ne la allo nga ni wóor mu ne la bébé foo nekk foo nekk nga ni ko maa ngi nii mu ne la maa ngi nii ci seen wetu kër dama ragal dama tiit nooy def yaay dama laajte rek nañ wax ngir yàlla dëgg nu ñuy def nañ tontu dañuy jóg sawaay gand ngandulu ñëw yàlla woo la ñëwoo xale bu jigéen bi woo la nga ñëw allahu akbar nga ni yow bëgg nga yàlla nga ni yow gëm nga yàlla nga dégg ñu naan qad qaamati salaa qad qaamati salaa ñoo ngi taxawal julli gi ñoo ngi taxawal julli gi nga tëdd sa téléphone sonné ñu ne la bébé chéri papa papa foo nekk foo nekk nga ni maa ngi ni ñu ne ñëwal léegi sa Israa maa ngi place sangam jëlal taxi allahu akbar jëlal taxi te jàkka ji bilaal bi waxu la jëlal taxi de bi nga génnee waxuma da nga doon jël taxi mais da nga doon naaw allahu akbar léegi yow nga ni gëm nga yàlla yow yow nga ni gëm nga yàlla beneen mooy waxtu woowu yàlla woola nga bañ sa téléphone sonné fi nga déposé woon pour liggéey ñu ne la yow la diw nga ni waaw ñu ne léegi léegi léegi nga ñëw allahu akbar nooy def da ngaa déposé woon pour liggéey ñu woola ci heure boobu ne la léegi dañ laa soxla nooy def tontu leen ma waaw yàlla woola nga bañ a ñëw ñu woola xale bu jigéen bi woola nga jóg fi ngay liggéeyee ñu woola nga jóg allahu akbar yow nga ne am nga sa toq xol fii tarfatal ay ni ngëm yàlla yow nga ni yàlla jaral na ma lu nekk est-ce que dëgg la du dëgg nga tëdd tëdd tëdd ba nit ñi julli ba pare nga tëdd tëdd ba 10 heures jot nga yeew teraxlaaye sa sarbet jàpp ñëw lal si jaada nag taxaw ci kanam yàlla naan ko allah akbar allah akbar qad qaamati salaam ñu ne la yaa mën a fen yow julli woo de ndax heure bi du heure julli nga xoolal waa jooju xam nga lu muy wax ah man de heure bi laa ko mën yow yàlla bu la neexee nga jël boo bëggul nga bàyyi jaa kubar du wax sax allah kubar jaa kubar lay wax jaa kubar tari fatiha bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim malik yawmi din yàq na abudu yàq na stain ku yàq na abudu yàq na stain looy am ci julli gi yàq na abudu yàq na stain ku yàq na abudu yàq na stain julli gi loo ciy am ñu bëri fii noonu la ñuy jàngee alxuraan yàlla yi jaxase jaxase ko lu tax parce que affaire bi dëgguwul ci ñun kon mbokk yi pour ñu am tuub an alayna an nuhaqiqa tawba alkaamila bu nu tuub tuub boo xam ne comme lii am nii tuubu aada tuubu aada tuubu kurus am na ñoo xam ne bu ñuy tuub kurus la ñuy jëndi kurus jënd koppati jëndi service àllaa ju beex vendredi rek ñu solu booy may sellal quoi damay même jigéen ñi sax léegi loolu ngay gis man damay dajeeg jigéen mu ne dafa muuru nopp yaa ngi ci biti baat baa ngi ci biti yeel yaa ngi ci biti lépp a ngi ci biti teg kol gu ndaw dama ne noonu la saas léegi de moom gis nga nag damay sellal ma ne sellagul de du nii la ñuy sellalee sellagul boo bëggee sellal day daj da nga koy defee ni yàlla bëgg doo ko defee yow ni nga bëgg loolu rek mooy tax mu sell au lieu yow nga defee ko ni nga bëgg déedéet da nga naan yàlla nan la ko bëggee ñu ne la nii la nga defee ko noonu su la neexee su la naqaree nga defee ko noonu loolu mooy tuub kon da ngay muñ soo bëggee tuub da ngay muñ boobu mooy benn ñaareel da ngay dogu al azmu wal hazmu da ngay dogu takku jël sa responsabilité maa doon tox toxatuma sa bopp bi metti nga feebar nga muñ rek gis nga tey jii boo wooree pourtant toxoo wala yàlla indil na la sax pour nga bàyyi tox ñuy tox yàlla indil na leen sax yoon pour ñu bàyyi tox mais mal asaf da nga gis ko woor ba ngoon woor ba ngoon de taxaw ci fii jàkka jaa ngi ni mu taxaw nii way gaaw nañ gaaw quoi ba ma ba ma julli ci ñëw dugg ci kàbbar ci fan yi rek fan yi dal na ma dugg naa ci jàkka ji xaw ma ban julli la allahu akbar waa ji di xeeñ póon xasaw xunn xunn xunn ak póon nga dugg jàkka di xasaw póon te yonent bi ne ku lekk laaj ku lekk laaj yonent bi nee na bul jege jàkka ji bul jege laaj daa dagante wala daganul laaj dagan na waaye xet gi dafa xasaw moo tax yonent bi ne ku ko lekk bu mu julli si gée ku lekk laaj bul julli gée bul julli si sama jàkk gée yonent moo ko wax yow nga tox póon xawma cigarette woor ba ngoon amoo looy toxe doge lu dul cigarette boo waxee ñu ne cigarette araamul dañ koo sib yenn saa yi ngeen ku ne non cigarette c'est que xam nga tax mu garaaw ñu ne ñu ne iblis moo ci saw loolu kay doy na mbot yow lu sa doom saw doo ko def sa gémmiñ yéen ñi toog fii yëpp seen doom bu sawee mburu mburu moomu du ngeen ko lekk du ngeen ko dugal seen gémmiñ socc bi ngay def sa gémmiñ sa doom bu ci sawee ndax di nga ko soccoo da nga koy sànni jëndi beneen yow nag nga naan iblis moo ci saw yow kay iblis loolu rek doy na mu bon beneen bi mooy turu cigarette bind ko ci arab cigarette ku nekk fi nga toog bind ko ci sa xel ci arab cigarette lan moo njëkk siin siin gi xam nga lu muy tekki sikk lu ci tegu kaaf kaaf gi kéeféer raa gi reewande yaa gi yàq taa gi tësay bokk mooy cigarette booy tux nga sex daa di jël almet bi ne tos kare teg na yàlla mooy naa la fur yàlla mu ne yaa ko wax nga ni sikki sàkk nekk ci mu ne la signal nga ni nii mu ne tamponel nga teg ci suuf écrasé loolu kay doy na kon kay yow xam nga ne baaxul kon xam nga ne yow da nga ko war a bàyyi beneen bi mooy lu muy saf ban njëriñ la la amal lan lañ bind ci paquet bi déggu ma li ngeen di wax de non déggu ma li ngeen wax waxaat leen ma dégg li ngi luñ ci bind loolu lu muy tekki ci olof mooy lii day yàq sa wérgu yaram abi dangereux lañ bind pour votre santé ñu ne baaxul ci sa wér gu yaram ba pare yow nga ñëw di lor sa bopp te alxuraan ne la wala tulqu aydiyakum ila tahluka kon kay xam nga ne aram na kon bu ñu nax suñu bopp tuub pour nga jaar ci wax naa bu njëkk bi mooy lan da ngay muñ ñaareel da ngay dogu ne lii dama koy bàyyi damay dogu da ngay dogu jël décision bàyyi ko complètement ak lu mu mën a doon nga bàyyi da ngay dogg beneen bi mooy boo dogoo nga takku mooy alxasmu nga takku pour bàyyi mbir mi su ko defee loolu ki ki wax la nag moom alhamdulillahi allazi afaana mimma btalaahu alhamdulillahi allazi maa ngi sant yàlla moom yàlla mi nga xam ne afaani mooma musal mimma btalaahu ci li mu nattuwaa ji nattu la kon santal yàlla mi la fi romb nattu keneen kudul yow ndax kat yow mi amoo loo def ba yàlla romb la fi nattu keneen ndogal yàlla moo ñëw mu dal ci keneen kon nag soo gisee ku mel noonu santal yàlla ci nattu gim ko natt gis ngeen diine lislaam lépp lañ jàngal dina bàyyiwul dara ñun kay ñun la waaye dina bàyyiwul dara ñun la sunu diine di ñor ñu xam sunu diine ñor ñu ñu toog di làmbatu nekk ay taxankatu guddi waaye diine bàyyiwul dara diine bi lépp looy def am na lum la wax looy wax lépp looy def booy lekk booy naan booy solu booy simmeeku booy dugg ci duus bi soo génnee sooy jàpp sooy sëyeeg sa soxna sooy tukki sooy yéeg ci oto booy yéeg ci fas loo mën a mën a def sa dund diine bi wax na la looy wax xam nga ko xamoo ko waaye diine bi jàngale na abu darda kenn la ci àndandoo yonent bi benn yahud dafa ñëw ci moom ne ko waaw yéen diine ji jàngal na leen lépp mu ne jàngal nañu lépp bàyyiwul dara waa ji bëgg a dem mu xëcc ko mu toog mu ne ko jàngal nañu ba jàngal ñu booy dugg ci duus nooy duggee soo duggee nooy nekkee foofu sooy génn nooy génnee ay ñun ñoo xamul tey ñoo réere diine ji moo tax ñu nekk ay làmbatukat moo tax diine ji diis ci ñun moo tax diine ji jafe moo tax diine ji am problème mbokk yi ñoo ngi ci ku bëgg a tuub ba remplir sart yi yan mbir ñoo koy dimbali ba tuub boobu mën a nekk wax naa ci gum ñaar mooy asabru muñ muñ mooy yàlla dafa neex mooy yàlla dafa neex xoola bañ a woor nekk ci lu la neex ngoon jot nga dem ànd ak jigéen dugg ci soirée yi toj kaas yi ba fajar nga ñëw tëdd nelaw ba heure bi nga yeew loolu neex na torop ci bakkan soo muñul doo ko bàyyi jaamu yàlla dafa metti foog nga muñ yeewu fajar dem jàkk woor bàyyi déglu musique bàyyi njaaloo bàyyi caaxaan loolu dafa metti soo muñul doo ko def beneen muñ bu mujj bi mooy feebar yi jafe-jafe yi nattu yi yàlla teg sa kaw nga nangu ko yàlla dafay nattuwaate su la nattoo nga nangu yàlla dafay tege ay jafe-jafe su la ko tegee nga nangu yooyu mooy bu njëkk ñaareel mooy wax naa ko léegi mooy al azmu da ngay dogg ci bàyyi yu bon yi ku mu mun a doon ci ñun li la yàlla sant boo jëlul sa responsabilité pour def ko doo ko def foog nga nangu bàyyi lu bëri mu ngi nii tey bi ñu jéemee bàyyi lekk mbokk yi ndax li ñu bëgg am nañ ko wala amuñu ko bi ñu jéemee bàyyi naan bi ñu jéemee bàyyi dem ci place caaxaanukaay yi ci weeru koor mi ngi nii yàlla dimbali nañu da ngay gis benn jullit boo xam ne weer wi yëpp dafa normal ndeysaan mu ngi julli waxtu yu juróom ci jàkka ji mi ngi woor ni yàlla bëgge mi ngi jàng alquran mi ngi def ay askar waaye bu weer wi di jeex ndeysaan muy muy muy muy rës di delluwaat ci ay caaxaan loolu gàcce la weeru koor weeru formation la pour ñu mën a jaamu yàlla pour sunu bakkan yi ñu mën leen a yar guddi ak bëccëg ci li yàlla bëgg naka la ñuy nekkee fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci ci lu yàlla bëgg weer wi jeex ñu delluwaat ci lu bon loolu nuñ ko mënee beneen bi mooy boo dogoo ba jël décision ne dootuma dellu ci bàkkaar yi da ngay def loolu ñu naan alxazmu mooy nga takku nag taxaw temm nag santaane yàlla dootuma ko bàyyi ginnaaw ndax képp ku ñu topp santaaneem yàlla moo ci gën a yay képp ku ñu bàyyi ay tereem yàllaa ci yay képp ku ñu dégg ndigalam yàllaa ci yay kon nga takk soo takkuwul doo def loolu ndax iblis dafa taxaw pour doo def doo topp yàlla sa bakkan dafa taxaw pour doo topp yàlla adduna dafa taxaw pour doo topp yàlla ñetti ñi foog nga xeex ak ñoom ba këpp leen ci suuf pour nga def li yàlla bëgg an nafs wa dunya wa shaytaan bakkana nga la topp naan la xoolal lii ni mu rafetee xoolal lii ni mu neexee xoolal lii ni mu taaroo nga bëgg koo bàyyi xoolal diw xoolal diw xoolal diw yenn saa yi nga bëgg a bàyyi dara nga xalaat ne ah man sama copain yi pourtant ñëpp a koy def garaawul garaawul naa ànd ak ñoom rek ndeysaan benn xale bu góor dafa tuub ci Arabie Saoudite tuub bu sell muy jàng alquran di dem jàkk joxatul jigéen loxo foo ko gis mu ngi set mu ngi yiw xarit yi ne duñ dékk loolu xarit yi ne lii mënul nekk kii ni mu kaccooree woon ni mu saay-saay woon bëgg ñu fee bàyyi tuub non mënul nekk ñu tëju ci néeg réunion ñu ne nañ fexe ñu delloo si waat ku nekk proposé nan la ñuy delloo see waat bi benn waay ne dañuy génn sorti yóbbu ko dañ koy nax ba yóbbu ko ne ko dañuy génn sorti suñ ko yóbbee ñu naan loo ko sàngara boole ko ay jigéen filmer ko ñëw won ko ko su màndi bi reesee ñu won ko ko ñu won ko nit ñëpp nag ñu ne leen waa ji tuubul day fen wala rek ñëw fekk ko fi mu nekk seen kër ñu ne ko dañuy dem sorti mu ne aouzu billahi min ashaytani rajim demuma gaa yi ne ko yow kon doo suñu xarit yow ñun ñuy ay bandi ñun ñuy ay caaxaankat di déglu musique di ànd ak xale jigéen yi yow nga ni tuub nga léegi ñun ñu ne dañuy dem sorti nga waroon ñëw ànd ak ñun su julli jotee nga nekk suñu imam suñu julli jotee ba pare nga waar ñu suñu jullee ba pare nga waar ñu ah nga di demoo yow yow li ngay woote doo gëmoo dara rek mu ne waaw waaw kon damay dem comme wax nañ ko dañuy julli suñ jullee nga waar ñu nga fàttali ñu mu ne kon am naa occasion rek mu ne damay dem ndeke dañ koo piégé mu génn ànd ak ñoom ndeke wax nañu ak jigéen ci hôtel bi ñuy dal wax nañu ak waa hôtel ba ñu yegg si rek toog rek ku nekk ñu dugal ko néegam moom bi mu duggee néeg bi muy nekk ak waa jiñ ko booleeloon dafa teg saakam toog ci lal bi rek ñu indil ko benn jus ndeke dañ cee def drogue mu naan rek màndi benn xale bu jigéen ñëw futti ko ni ko yaayam juree ba mu set picc nekk ak moom ci guddi gi ñoom ñaar ñoom ñaar ndaw si di ko filmer ndaw si di ko filmer ba fajar jot ndaw si ñëw fëgg bunt yi ne leen li ngeen ma bëggoon li ngeen waxoon def naa ko réussir naa kaay leen ngeen jox ma sama xaalis yoo leen ngeen fay ma gars yi daal di jóg fëggante këng këng këng këng ñëw leen ñuy keke keke keke di xakataay jëm ci moom ndeysaan ñu ñëw ubbi bunt bi fekk ko mu ngi tëdd dëpp mu ngi dëpp dum ni ko yaayam juree dara topp ko gaa yi taxaw di xaqataay di ree moo ngi dëpp rek gaa yi di ree kenn ki daal di jékki-jékki rek ñëw wëlbati ko rek ndeke deena bu yàgg ndeke deena depuis xoolal kooku niñ ko delloo waatee ci mbon noonu la deewee moo tax ku jëlul décision mbokk yi pour topp yàlla gaa yi duñ la bàyyi nga dem waaw mais yow copain looy jéem a def ni yow mais gaan yow ñun nag yow ñoo doon ànd mais yow mais yow mais yow mais yow mais yow mais yow mais yow yooyu lañ lay may bu dee jigéen la loolu lañ lay wax di la fàttali démb naan la ñoog yow la woon ñoog yow la woon ñoog yow la woon def nga lii def nga laa di la fàttali yooyu pour doo dem ci yàlla kon mbokki jullit yi incha allah li des ci waxtu wi ñu def ko ay question ak réponse thème bi jeexul sax waaye thème bu mel nii moo aajo jamono yii ñu fàttali ko nit ñi jamono yii ñu toll ci sunu réew mii dafa laaj ñu def ay waxtaan yu bari yu mel nii pour delloo si jaami yàlla yi ci yàlla mbokk yi na ngeen yëg ne dund gi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bés dana ñëw di nga dugg sa bàmmeel yow kese di nga fi bàyyi àndandoo yi bàyyi fi am am yi sunu borom subhanahu wa taala wax ñu ay kàddu yu leer yu wóor walaqad jitumuna furada kama xalaqnakum awala marra wa taraktum ma xawalnakum wara zuhurikum yéen a ngi nii tey yéen ñëpp faatu ngeen ñëw ngeen ci man waaye bi ngeen di dee di ñëw par kenn kenn ngeen ñëw àndu leen ak kenn ku la fi ànd koo fi àndal mu naan la ëllëg dinaa la nangam day sóob tukulóor yi nee nañ allah du sina nafanno umataa koy xoore joomum bu nekkee béjjën dina jëriñ du jóge ci bopp borom déggu leen wax bi de béjjën bi nga takk naan ku ma laal dee dama belee ndew yow xamoo lu xew da ngay gis ku jël bunt ku dem buntu këram takk ci béjjën nga gis benn waaye boo xam ne ndigg li béjjën kese la daa takka takka takka takk cinquante béjjën a ngi ci ndigg li oto bi da koo yeew dell ay béjjën béjjën boobu fan la jógee ci xar ana xar mi rey nañ ko fees ko saam ko togg ko ba mu ñor lekk ko seeñu yax yi sànni mbalit der bi ñu daaj ko def ko jullikaay nga takk béjjën bi naan ku ma laal dee béjjën bi kay bu fekkoon ne mun naa aar mu aar bopp bi mu nekkoon am na benn waaye day taxaw ci tali tali bi su oto droité rek mu joxoñ la ne day baax gars yi ne dëgg na de kii daa demoon ci toolu sëñ bi fala baaraam bi daggee daggetu baaraam bi nag dañ ko cee ñaanal ku mu joxoñ ne la day baax rek day baax su fekkente ne moom ku mu joxoñ ne day baax day baax jarul muy dem ci tali bi di joxoñ nit ñi ne joxoñ boppam rek daal ne day baax yëf yi baax waaye déet gis nga sénégalais dañ leen a nax ndeysaan seen seen xel yi lañ tafu moo tax loo leen wax ñu gëm ko loo leen wax moo tax xoola wootekat yi am na ñuy wane yàlla ñii ay yàlla lañ ñii ñoom uuf uuf façon woote bu nekk di nga ko dégg Sénégal chaque jour nga gis kilifa diine bu bees chaque jour nga dégg wootekat waaye xam ngeen lu ciy dëgg mooy li yàlla wax ak yonent ku yebo nekk ci ku yebu teg sa loxo ndeyjoor ci alquran sa loxo càmmoñ bi nga teg ko ci sunna nga nekk ci li yàlla bëgg ak yonentam loolu mooy dëgg loolu lañ lay laaj ci biir bàmmeel bàmmeel kenn du la laaj sàmba kenn du la laaj demba kenn du la laaj sa ndey kenn du la laaj sa baay kenn du la laaj sa famille kenn du la laaj tarixa kenn du la laaj xeet boo bokk kenn du la laaj ban lang xam nga lan lañ lay wax maza kunta taqulu ala hada al abdu muhammada nii lañ la koy def nii ne la Muhammad mi nga doon dégg nga ni waaw ñu ne la moo ngi nii loo doon wax ci moom soo xamul Muhammad ku xamul Muhammad danañ la dóor biir bàmmeel ba nga mokk yeneen tubee ko wax de waxuma ko dama koy nettali ku xamul Muhammad danañ la wulli biir bàmmeel waaw kooku doon ngay réere ñu duma la kon nag nañ leen ko xam xam ko mooy dem jàngi xam mooy kan xam nu mu doon dundee ndax moom la yàlla yónni ci ñun moom la ñu yàlla wax ne lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen kon mbokk yi waxtaan waa ngoog maa ngi jéggulu njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu